إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار ذي الصواب أحمد من على الورى صفاه بخلق بيعة لا سواه أمدحه بالنثر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاك ليث فتوى من اعتدى أذكى صلاته عليه وعلى جملة آله وصحبه الملام حرف الباء بالله أؤمن ووجهي أسلم له وبالإحسان ذين أختم بالمتبى له أمت وافوز إسا ساو في تيتاوين jafe-jafe yi fi am dañu am poste santé boo xam ne li mu yenu daf ko ëpp doole ñu demandé nag bëgg ñu dimbaleen ci centre de santé ambulance tamit jamono ji soxla nañ ko lool ndax malade yi saa bu ñu leen di évacuer day am coono lool des danañ woote ñu toog lu man ñaari waxtu ambulance bi door ñëw te xam nga ne loolu métti na nit ko tekk ci ay xat-xat bëgg mucc ñu woo ambulance muy toog waxtoo genn wàll ñaari waxtu loolu bëgg nañ ko ñu dimbali ci nu mu gën a gaawee ñoom ambulance yoon bi nga xam ne tamit moo jóge ci poste santé bi àgg ca taliba dafa naqari lool ba oto mënu cee jaar kooku tamit ñu ngi sàkk autorité yi ñu dimbali ñi ci euh, monsieur le maire ñi ngi koy ñaan mu jàll leen ñu ko ca premier ministre président de la république ministre de la santé ñu jàppale ñu ba ñu am centre de santé waaye ñu dal dem ambulance nu mu gën a gaawee ak yoon wi nga xam ne mooy jóge ci post bi dem ba ci tali bi wàllum courant bi am nañ ko waaye doyul ndax xam nga lu doy moom yombul ndax li fi dëkk si léegi dafa yokk bari lool ñu ngi bëgg ñu dolli ñu courant bi ndax buñ sañoon ñu fi dëkk yëpp danañu am ndax insécurité bi fu amul courant rek dafay bari sàcc yeeg di def loo xam ne lii lu warul am la te bu fekkee le euh, am nañu courant loolu dana wàññeeku moo tax ñu ngi ñaan ñu dimbali ci ñu mu gën a gaawe ndox mi moom wax dëgg yàlla fi mu ne ñu ngi ciy sant bu baax a baax xam naa bu jaree dolli tamit euh, fii manqué bariwul am na mm, defe naa lu mat ñaar ba ñetti quartier yeeg yoo xam ne bëgg nañu faa dolli ñu dolli leen loolu tamit ñu ngi sàkku rek ñu dimbali ñu ci waaw màggal gi nag mbooloo mbooloo mu baree baree baree bari moo fiy daje fii ci Thiawéne ndax dañu boole màggal gi ak ubbi jumaa ji Serigne Touba dafi ñëw lu mat ñaari yoon am ñu wax ne ñetti yoon ñu def ko nag màggal annuel gu mag googu lañ fas yéene amal bu soobee yàlla waaye dañ ko boole ak ubbi jumaa ji suñu xëyee déem ga fa Serigne Touba ñëwoon ba midi demi dañuy ñëw fii ubbi jumaa ji ci njiitul Serigne Bara Mbacke ibnu Cheikh Abdou Ahad Mbacke waaye ci njëgal ma Mamadou Mountakha Khalife général des Mourides yoon wi naqari na torop torop ñu ngi ciy sàkku ndimbal ci nu mu gën a gaawee. il jannatal بان لنا معا بالالتباس كون ابن عبد الله خير الناس